Moustapha Seck mu ngi dëkk Nindi mi ngi judd ci atub 1982 ci dëkk bu ñu naan Kaolack Moustapha Seck nag mën nañoo wax ne li ëpp ci am njàngam mi ngi ko amale ci dëkk bu sell bii di Touba doon jànge daara yu ñu naan ñànka te Serigne Djily jiite woon ko ci atub 1991 jàpp 1995. 1995 96 boobu nag ci la retourné waatee fi nga xam ne foofu la bàyyi ko woon muy Kaolack doon fa continuer li nga xam ne moom mooy am njàngam. Moustapha Seck Maawo mujjee na fa jàng alxuraan ba wàcc alxuraan waaye yëmut ci daara ndax continué di nga xam ne moom mooy wàllum nasaraan ba am ci lijaase bii ñuy wax PFM. mu ngi ñibbisiwaat ci atum 2005 fi nga xam ne si nii moom mooy Touba Nindi ginnaaw bi mu wóyalee am jàngam ci diwaanu Kaolack ba am lijaase boobu di PFM waaye it jàng alxuraan ba mujjee ko wàcc. kenn mënta wax mustapha Seck nak te do ci bol ci li nga xam ci lay yëngu muy walum politique opérateur économique bi mi ngi ñëk and ak ku ñu naan Abdou Lahat Soura don membre PDS bu yagg diko ba 2011 japp 2012 mustapha Seck ci 2012 bobu ci le retourné waté and ak ki nga xam ci ni mom moy président Macky Sall bok ci alliance pour la république mustapha Seck Mawo don xex ak président Macky Sall ba mujjee li nga xam ne si nii moom lañ bëggoon muy président Macky Sall jël réew mi loolu mujjee amtu ke Seck mën nañu wax ne bokk na ci ndaw ak président Macky Sall ci Bawal doon ndaw bu ambitieux opérateur économique bi nag dafa mujj jékki-jékki rek mel na ku wan président Macky Sall ginnaaw doon loo xam ne jaaxaloon nañu bëri ci askan bi képp koo xam ne bëgg na xam lan moo waraloon Moustapha Seck def jëf ji nga xam ne jaaxaloon nam Sénégalais yëpp mën nga ko xaar ci janoo bu ñuy am ak Ndeye Thiam Sadio ci seen émission Ndeye Thiam ak koor gi Ah, jaa ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi nga xamante ni si porte bi jàll na kenn dootu ko naatable muy Moustapha Seck dëkk fii ci Ndindi responsable APR bu mag fii yéen mbokk yi nga xamante ni si yéenay suivre seen émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou noonu lañ koy ànd ak yéen saa su nekk balaa ñuy xuuse Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoo mbokku téléspectateur Mourides Info. jëf soxna Ndeye Thiam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la masawu coono ndax koor gi vraiment métti na xam naa ne ñi sant jaww ak géy moom ma ne dinañ woor ndax fan yi tàng na ñaan yàlla donc li dess ci koor gi mu seddal ko guyu metti na trop vraiment ñu jóge ci ba pare nga ñëwaat présenter émission ci ngone gi mom vraiment metti na ñu la ci masawu coono. merci beaucoup Mustapha, Seck Bounindi présentation bi amna solo trop Moustapha Ramadan Mubarak lañu wax naka nga dundee. Eh, ma am mbégte ak contenté vraiment ci sahru Ramadan mu weeru koor gu tedd gi di ci baalu ñëpp di ci baal ñëpp. di euh Murid Info di sante eh, sen directeur Serigne Mbacké di suma xarit di la sante yow di la wu ci coono ci wéru tedd wi koor gi nak eh, vraiment man mom dama nan koor koor ama ragal man dama ñëmé koor donc bu ragal de am koor ama ragal ndax ku ñeme koor la euh, bokkuma ak ñi sant Jaw ak ñi sant Géy genre jiri Jaw geeg ak baay Talla ñeneen ñi sant Géy important am na solo torop jërëjëf Moustapha ci yooyu leeral am na solo naa mën naa xam Moustapha lan moo la dugal ci politique ak lan la politique mës a apporter ak lan la la mës a yàqal ci sa ànd. Euh, jërëjëf euh, soxna Ndey sa Saliou li ma dugal ci politique defe naa ne 2002 la. ku ñu naan Abdou Lahad Seck bi nekk euh, Sourah ancien PDS defe naa ne moom laa bokkal kër muy politique di jàppale Macky di jàppale euh, Ablaye Wade ma nekk ci moom di ko jàppale ñu ànd ma di ko coordonné euh, loolu moom ma dugal ci politique noonu la ñu kon nii bi ñu demee ba côté 2011 nag ci la ma benn kilifa booleeg président Macky Sall man ak njabootam. jox ñu ndigal ñu ànd ak moom di ko liggéeyal defe naa ne loolu moo ma dugal ci politique bi en tant que opérateur économique euh, li ma ci gën a bàyyi tamit mooy bëgg a jàppale askan bi bëgg a jàppale nit ñi bëgg a am taxawaay ci population bi defe naa ne loolu moom a gën a motivé donc may politique defe naa ne bu doon li may liggéey rek mën na maa dundal mais soxla naa ñeneen ñoo xam ne bëgg naa am ci ñoom taxawaay muy ay néew doole ak fu euh, mbir war dem mënu fa àgg ma àggale ko fa loolu lépp noonu euh, motivé na ma ba ma dugg ci politique tamit euh, motivé na ma ma nekk ci tamit jërëjëf. Moustapha mais gis ñu gis ni que bi nga transhumé nga dem Pastef dangaa dem fekk Pastef li nga xamante ni si moo la jëlee woon APR ba tax nga deesiwaat APR. Pastef déw ma Pastef ñëwaat. man borom réew mi moma soxla wat ma ñëwaat moma wat ma ñëwaat dafa dafa wara leer donc dama def passé pour andan ak ñom liggéey mais comme borom réew mi mom amon na yaakar dafa pare am na am taxaway bo am ci man am considération bo xam xeyna na xalaat na depuis 2012 la donc buñu ñu waxtaanaatee rek xeyna na war naa ko mën a parce que nit it doo ci bokk ba dara dul dara nga ci man nga nak mer génn ci dem nek ci lenen mais nak bu considération amanté bu amanté, lu amanté lu taxaway bu am rek du intérêt mais bu donc war na la motiver nga ñu ak parce que xam nañ fi euh, man mi président Macky Sall 2011 2012 respecté ni ñu andé diko jappalé goudi ak di génn fi ak bitim fi tax na ma bàyyi ko parce que man it am naa lu ma bëgg ñi ma àndal am nañ lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy léeg nit day ñëw xoolee la sa jëmm président Macky Sall manqué bi bi ne ndox wax naa ko duñ am ku la ko defal te lu ci ëpp dañ euh, ñeneen ñi nga xam ne parfois xëy na man nga wax ak ñoom sax ñu jàppale la dañuy bëgg nga ñëw wéeru seen ginnaaw ak yooyu te loolu du. defetu Macky Sall ci Touba naka nga ko yëgee en tant que responsable nekk jeune fille. non dama am fu ma nekk muy. ndindi ak fukki dëkk ak juróom-ñaar yi ko wër ndaka jekk moom laa gérer mais defetu beneen fu nekk ci Touba loola li may intéressé bariwul parce que côté bii ma nekk fi laa am ay militant te fi laa am ñu may jàppale te fi laa am ay taxawaay fii côté bi ma nekk man fii nii waaw am na dëkk yu mu am ndam malgré wax naa la ne la donc yéex a ñëw gi nag gi may yéex a ñëw ak ak li ma waaw am na lu mu yàq loolu moom maa ngi koy jéggalu président Macky Sall leer na ma ne bu loolu amul woon man xaw ma kuy perte mais dinaa fi am ndam moom fii moom incha allahu rabbi loolu moom am naa ci yaakaar bu wér waaw beneen défaite bi nag xëy na donc loolu la euh, ñu naqarlu ko rek ndax tamit ñu nit ñoo ñoom ñoo bokk di liggéey ci parti bi ci Touba donc nag comme nag d'occupé nañ ko am fu ñu féete rek ñun fañ féete rek lañ yemoon donc xam naa ni ñu gën a góorgóorlu rek. ñu bari nag dañu jàpp que ni yéen ñi nga xamante ne si yéen responsable yi fii nekk fi Macky Sall yéen a deful seen liggéey war tax mu am fii ndam wala est-ce que du seen leader moo deful loo nga xamante ni si war naa tax mu am loolu de am na ci loo xam ne moom dinaa ci d'accord ak yow mooy nit boo ko yónnee ci ab tool da koy jox ay jumtukaay te jumtukaay dafa manqué ci commune bu Touba bi. la sañ wax ndax bo xolé buñ doon xol ay nomination wala dara wu fi man nañ ne sax amu fi femmes am nañ façon bu matière donc ño avons man nañu gérer poste yu poste premier ministre bi mu supprimer sax amna ci ño ngi ci Touba tam donc on ñooñu dafa baax président Macky Sall tamit. jël ci dëkk bi nommé leen parce que loolu moom soxla nañ ko ñun waa Touba moom soxla nañ ko parce que loolu dinañu jàppale parce que euh, dina am lu bare bari lu muy saafara mais bu ñu bàyyee nii rek ñuy tañax tañaxi ku ne la nga am dugal te boo demee mars amoo 1000 francs jël téeméer ak juróom fukki dugal ci parti bi tamit dana ko wengal trop. ndax loolu tamit tax na parti bi tamit di fi am jafe-jafe tout le temps tamit loolu tamit moom kii na ci loolu. moom dëgg la am na solo ñu gis ne que local yaa ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam Moustapha Seck bu Ndindy déposé na pour nekk conseil départemental. non man nag déposé gu ma te defe naa ne dama bëgg a xaar suma kilifa président Macky Sall donc képp ku fi teg am am naa yéene am naa mébét. mais nag dama am kilifa te defe naa ne ni ma waxtaanee ak moom man moom lay déglu pour l'instant muy président Macky Sall moom lay diglu mooy sama kilifa mm-hmm. moom lay déglu donc euh, képp ku mu fi teg rek dina ànd ak moom waaw ku mu fi teg bu ma fi tegee danaa ko porter list bi ba yàlla may ma ci ndam ku mu fi teg bu fi tegee keneen ku dul man tamit danaa ko jàppale ñu ànd liggéey ci loolu daal laa xam ni donc. Euh, mën naa ko cee wax ci ci kii yi mais déposé gu maa ngi xaar suma kilifa président oh, Macky Sall laa ci xaar moom laa ci xaar fa mu teg ma tegu ci parce que moom laay diglu. yaakaar naa kàddu ci politique ak fan nga bëgg a àgg ci bi mais xam naa ne du yomb mais nag euh, mbooleem lu nit di yor ci politique di am ay taxawaay donc euh, am naa yéene ji te maa ngi ci yoon wi te am naa taxawaay pour def ko. ndax léeg-léeg ma romb koñ boo xam ne damay gis na mu mel na mu taaroo na mu rafetee du ay jinne du ay malaayika ñoo ko fa def mais nit ko fa def te nit ko ko fa def donc dañ ko dooleel mu ñëw def ko fa te am naa yéene juuju ndax tey su ma sañoon ndindi gi ma dëkk ak fukki dëkk ak juróom-ñaar yi donc euh, danaa fi def lu kawe sama njort lu kawe njortul waa ndindi tamit parce que am na lu baree bari lu mu manqué parce que ci biñ jubee élection yi def nañu lu ëpp 1 km 700 yo xamné addiction dóor la ma mayé ko ci biir ndindi ak lu ko wër te xaajut xaajaatut donc ku mel noonu soxla na ay taxawa yu am solo ci politique yo xamné dina saafara jafé jafé dëkk bi ak jafé jafey eh, yeneen dëkk yi nga xamné ñoko wër te bok ci li nga xamné donc fofu lay fofu lay milité woo ta ñom la andal di liké fu melni Kayra Ndaw fu melni Kayra Mbay fu melni Touba Bogo dekk yi yëpp nonu amna fa yéene amna fa taxawaay pour jàppale senesi parce que dekk yi amna fa ay représentants yo xamné donc man la déglu donc ta ño xamné ñu influent lañ ci dekk yi ñu nek am fa taxaway lolu moo tax donc ma ngi ñaan dal yalla mi de tëwul donc euh, mu teg sama loxo loo xam ne danaa ci man a jàppale dëkk yi dëkk yi ma wër yëpp ak yi su ma ko naree jox moom mu naree yem ci man kemb boobu ma ko jox yàlla bu ma ci jot la ma am yéene mooy loo xam ne dinaa ko def mu jëm ci biir askan week foofu daal la am yéene soxna Ndeye Thiam Salim yooyu kàddu leer na am na solo torop sa yéene ci waa dëkk yooyu nga lim yëpp yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba mottali jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax sa kàddu di sante wa mourid Info Serigne Mbacké ku bax la wax deug yalla di diko sante di ñaan euh, donc taxawayam ak yeneem ji mu am yalla jappal ko ci ba yok ndax li mu def ni jafena ta amul won donc kon ñun ñi ngi gis kon liñ man moy ñaanal la yalla na la yalla taxawu Serigne Mbacké donc euh, di sont suma imam Cheikh Sall di sante tamit euh, suma coordinateur bi nga xamne activité Ibrahima Ndaw di sante suma responsable des femmes muy Soxna di sante suma responsable des jeunes muy djili Diaw ñatt ñooñu qui Nous bu leen rek alors kenn di sante ñep di di leen sant di la sant yow tamit sa taxawaay jërëjëf merci beaucoup. jaa ngeen def mbokk yi gis ngeen ni ngeen ko àndee woon ak ñun ci biir koor gi Ndeye Thiam Saliou ak koor gi noonu lañ ko àndee woon ak seen responsable bi nga xamante ni si moom lañ seet si woon muy Moustapha Seck bu nindi ñu ngi koy remercier bu baax noonu ngeen ciy àndee ak Ndeye Thiam Saliou ba fii ba koor gi jeex incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous di daje ba suba incha ci beneen numéro jaa ngeen